asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen jégalu ci kàddu yi ñuy yëkkati ñu ngi leen di char bu baax a baax ci gàmmu gi euh, Babacar Seck la euh, vice président daara Istikhamaty euh, ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax leen di présenté daara bi daara Istikhamaty la bu Yara Anne sur Mer président bi Mamadou Diouf présidente bi yow Aïda Diouf mooy présidente daayira bi oui comme niñ ko waxee rek daayira bi depuis 78 lañ ko sanc waaw depuis 78 lañ ko samp waaw mu ngi dox ba léegi nag euh, ci mobilisation ci lépp mu ngi ci ciy góorgóorlu bu baax comme ni ñu ko waxee daayira bi daayira bi ñu ci ciy góorgóorlu bu baax a baax parce que yaraax la ne euh, daayira yu bëri xam nañ ko ñu bëri xam nañ ko parce que bokk na ci daayira yu fa jiitu ci ci daayira yi moo tax daayira bi ñëpp xam nañ ko waaw comme niñ koy waxee ñu ngi sant bu baax tamit waa Hann TV amuñu seen fay parce que ñoom ñoo ñëw pour defal ñu benn interview ñu ngi leen ciy siyaar bu baax di ci am contentement ak mbégte bu baax a baax parce que lu rafet la comme ñoo bokk fi ñu dëkk waaw ñoom ñuy ñëw di saritu seen waa gox ci loolu lañ nekk ak ci lan la dox parce que tamit dafa am solo waaw ñoom sant nañ leen ci bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax amuñu ci seen fay parce que yombul parce que lii daanaka bu ñu xoolee léegi mu ngi commencé di am avancement tuuti ndànk ndànk ndànk te loolu dafa jaadu ci gox yëpp dafa jaadu ci gox yëpp comme yarax bi ñu dëkk ñu xam ne kat an bi waaw war nañ mën a nekk benn lépp ci cadre daayira bi ndax daayira bi ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy naanee te dañ ne nit ñu bokk fu ñuy naanee nag kon ñoom ñëpp war nañ mën a nekk benn daayira bi tamit programme yi muy doxee ci daayira bi mooy chaque jeudi day am daayira chaque jeudi day am daayira vingt vingt et une heures ba vingt trois après ak dimanche tamit day am daayira kade bi cinq heures waaye après dix neuf heures mu jeex waa loolu mooy programme mu daayira bi xanaa ak yeneen dara daayira yi nga xam ne collaboré nañ ak ñoom parce que tamit ñu ngi ci dafa bu ngeen bokkee ci benn gox dafay laaj. yéen ñëpp ngeen bokk benn pas-pas tamit day laaj ngeen bokk ko ngeen ciy dox loolu tamit ñu ngi ci doon dox boobu mu ngi commencé di am jéego ndànk-ndànk jamono yi rek am na benn fédération bu ñu commencé taxawal pour daayira yëpp collaborer parce que dafa am ñuy wax ne daayira yi maanaam nekk ñu ñoom ñëpp benn bloc en cent pour cent te yooyu la ñu bëgg a dindi parce que tamit bu ñu nekkee ci benn gox war nañ mën a ñëpp nekk benn ba bu ñu wootee ñëpp ñëw ci loolu noonu ñuy woote parce que mooy jëmmal dëkk bi ñu nekk te jëmmal boobu noonu loolu moo koy mën a andi daayira yëpp nekk benn su ko defee ñooy yëkkatindoo di dóorandoo programme bu ñu bëgg a taxawal taxawal ko ku ñu bëgg invité ñu invité ko te loolu noonu lu koy mën a am mu tax mu mën a am maanaam mobilisation ñëpp nekk benn parce que waa teew dañu constaté ne maanaam daayira yi seen bloc des na ko comme seen bloc des na nag kon laaj na ñu waxtaanaat bu baax pour ñu am ñu congrès daara yëpp mën a ànd nekk benn ba ñu mën di yëkkatindoo di tegandoo parce que dafay am solo parce que loolu moo fi ne parce que da ngay dem ci yeneen gox ñoom ñëpp daayira yi ñu woote benn jour boo xamante ne s'il le faut dañuy def programme conférence s'il le faut mu nekk benn xadara boo xamante ne kilifa yi sax dañuy déplacé wu ñëw pourquoi ñun pour pourquoi ñun te dafa war a mën a nekk war a mën a nekk te loolu lu koy andi mooy maanaam ñëpp nekk benn ndax ñoo bokk gox bi ñu wootante ñëpp teew lépp ku ñu bëgg invité invité ko ñu xam ne kat ñun yaraax fii nii waaw am nañ benn bloc boo xamante ne lu ñu bëgg a def dañ koy def waaw loolu ñu ngi koy bàyyi xel tamit parce que tamit ñu ngi ciy waxtaan ak daayira yi ñu ciy waxtaan ak daayira yi su ko defee daayira bu ci nekk tamit bàyyi ci xelam bu baax a baax xam ne gox bi yëpp benn la war a doon maanaam kenn ku dem maanaam yaraax lay teewal kon waa yaraax képp kuy dem di teewal yaraax maanaam war nañ am boo xamante ne ñëpp ay teewal ñëpp ay teew su ko defee ñu gën ci góor góorgóorluwaat bu baax a baax bàyyi koy xel daayira bi tamit ñu ngi ciy góorlu bu baax a baax parce que daayira bi ci kilifa yi la woon ñuy dox di dox daayira bi di dox soixante-dix-huit muy dox di dox ba ñëw ñun ñu ñëw ba nekk ci daayira bi di ci góor góorlu ñu ngi ciy mobiliser nag ñu ngi ciy mobiliser bu baax a baax di ci góor góorlu tamit euh, programme gàmmu gi tamit dañ koy préparer bu baax a baax parce que événement la ci ñun dafa nekk événement boo xam ne dafa bokk ci ñun comme événement bu bokk ci ñun la nag kon événement boobu noonu day laaj ñu waajal ko waaw parce que dañ koy mobiliser dañ koy avant gàmmu gi dañ ciy waxtaan di ci def ay réunion pour xool naka la ñuy mën a demee naka la ñuy mën a demee ci gàmmu gi ak mobilisation bi nan lañ koy organiser ba nga xamante ne suñ demee parce que yombul tamit parce que gàmmu dafa metti yombul tamit ngay jël doomu jàmbur yóbbu leen pendant 3 jours tamit c'est un peu compliqué quoi moo day laaj dañ ci waxtaan bu baax di ci mobiliser bu bu baax ba pour ba bu ñëwé ñu mën leen organiser ba nga xamantene wa waaw lépp dina mëna a jaar ci yoon parce que tamit daayira bi ñom ci non lañuy ñuy parce que organise président organisateur yi tamit ñu ngi koy sante bu baax mbay ñu ngi koy sante bu baax parce que mom tamit depuis bu mu ñëwé ba légui manam mu ngi innover affaire yi mu ngi koy yëgal. parce que niveau bi mu nekkoon gis nañ ne moom bi mu ñëwee si président organisateur yi mu ngi koy yéegal bu baax a baax a baax parce que am na comité te comité bi yëpp a ngi dox ni mu war a doxee ñoom ñooy mobiliser lépp kon ñu ngi leen ci sant tamit bu baax a baax a baax dañuy ñëw bu ñu ñëwee gàmmu gi tamit fii tamit day am mobilisation tamit naka lañ fi nekkee ba ba ñuy paree ci gàmmu gi ba ba ñuy ñibbi yooyu yëpp dañ koy waxtaanee su ko defee bu ñu ñëwee fi ñuy dal. waaw kenn ku ci ne li nga war a def da nga koy def parce que kenn ku ci ne fi ñu la yam li nga li ñu la tex li ñu la jox danga koy appliquer ba mu mat waaw côté côté boobu tamit organisation boobu am na ci solo trop parce que dañuy ànd ak suñu yaay yi ak suñu mag yi ak suñu papa yi ak suñu doom yi ak suñu rakk yi kon loolu tamit day laaj mobilisation bu baax président bi tamit ak présidente bi tamit amuñu seen fay parce que tamit ñoom taxaw nañ ci daare bu baax taxaw yi ñu war a taxaw sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen bu baax a baax parce que ñoom ñu ngi def defi kilifa waaw waaw suñu ñun ñi nga xamante ne ñun lañ ñoo dopp ci seen ginnaaw suñu nekkee ci loo xam ne du noonu sax dinañu xamal nañu ah taxaw leen yoon bi du noonu kat yoon bi nii la bàyyi leen ko xel waaw waaw kon loolu dafa am solo booy ànd ak mag léeg-léeg mu ne la waaw li sëriñ Babacar waxoon ne mag yi kese dalul xel waaw ak xale yi kese tamit dalul xel mu ne dañuy boole xale yi ak mag ñi ndax xale yi am nañ doole te amuñu xel léegi su ko defee ñooñu dañ leen di booleek mag ñi suñ leen booleek mag ñi nag waaw dinañ mën a dem su waru xel ñëwee mag ñi xalaatal leen ne kat bu ñu jaaree yoon bi dina baax mais bu dee ci wàllum doole bu ñëwee ñu ne xale yi kat bisimilah comme ni góor gi waxoon day am si daayira bi da gis mag ñi da ngay gis ndaw ñi da ngay gis xale yi lépp kon côté boobu tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax tamit euh, daayira kade bi tamit euh, daayira bu am solo la parce que tamit ñu ngi ciy tàggat xale yi waa ñu ngi ciy tàggat xale yi en plus tamit ñoom dañu am programme xale yi waaw chaque vacance dañuy am programme loolu tamit ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax leen defal programme bi en plus ñuy sant tamit Oustaz Asmalik Dieye moom mi nga xam ne moo yor daara ji ndax moom chaque jeudi mooy waxtaan ci daara bi parce que dañ ne daara daara la waaw su ñu defee suñu commencé tuuti jàng taysir way tuuti après dafay am temps moom pour waxtaan su ko defee ci fànn yëpp lay waxtaan moom tamit amuñu fayam sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko parce que tamit même daayira kada bi tamit dugal na ci loxom bu baax a baax baax parce que dugal na ci loxam bu baax a baax kon ñu yamagum doon on attend